tey institution bu tollu nonu jot di jot quinze milliards par an man dama japp ni amulul nit ñi njariñ benen bi ci des moy tey jii am na yeneeni priorité yo xamni man nañu jël xaliss fofu. affecté ko fofu motax fofu foofu li ma wax rek du bari man en tant que premier vice-président de la commission des lois

gis nga li may wax seen yoonu nekku ci man Tivaouane laa dëkk te li may wax kenn mënut a teem a wax ko moom mii xam na li may wax na dama koy wax gis nga fan yi xam nu mu def xam fan yi maa maa ngi ñëw di la ko expliquer ni la déguerpissement la wax ni moom lay def loolu ñëpp d'accord nañ ci en désencombré ñëpp d'accord nañ ci mais paa ngay am xaaj ak seen di dindi ma sàmba bàyyi ma dem ba dema dem ba moom tànk bi laaloo la ci diw Demna demba, dem ba ni sax ñi ñi mu désencombrer mais dafa dem ci yi di démolir ana maire ak démolir ay këri jambour yow fi nga démolir ci la village kër Yoro le maire de Shérif, Lo na ni la carrément qui ngay ñew di démolir ont moko des ci jambour bu dem lijjanti liggéey ba ñew yaayam ni ko kër la bëgg Tivaouane muy enseignant di takalé di takalé ba tabax kër bay waaj toxu dem ba jóob ñew indi ndaanam di jaay affaire de autorité ni daanel leen kër gi ñu daanel kër gi lool foo tek fan nga ko tek benen bi ci dess bind na benn communiqué bo xamni dama lay liiral communiqué bi nga dégg communiqué numéro 2 xamna certainement amna numéro 1 tous les détenteurs de titres d'attribution de parcelles dans les lotissements Cœur Daba, Khalifa Ababakar Tor Malik, PAM, PAM complémentaire, qui ne sont pas encore acquittés de leurs frais de bornage au mois de novembre 2021, comme annoncé précédemment le 15 novembre 2023, sont priés de régulariser leur paiement avant le 15 août. Li le 5 novembre. Mouni passé ce nouveau délai, les dites parcelles vous seront retirées et réaffectées. Vous savez ce ñi nga xam ne ñoo ne ci municipalité am ay ay ay booyam ñoom la nii dama leen wut ay carte ay fo carte d'identité ñu nangu terrain jàmbur yi nga xam ni tey bañ leen koy may bañ leen koy may yàgg na ñoom ñu dem ba teg ci seen bët xam ni parcelles yi ku mën naa jar 10 million ñu jël ko di leen ko jaaraat moom li ñuy jaay yëpp ci ñoom lay ñëwaat te loolu rafetul Tiwaawan dëkku taaliba la kenn du ñëw li may wax xam nga li may wax baax jarul ree Tiwaawan dëkku taalibe la waroo ñëw yow am nga xaalis tabax nga sa étage bu bu ni boy Tiwaawan ñi amagul lu nu moole bàyyi leen ñu am temps defar seen kër yi man loolu laa lay digal gis nga tali yi ngay jël di ko mbuboo naan tali yi may def fii tali yi ku ne xam na ni maire amul koppar yum defaree tali état mooy defar tali ñun xam na loolu Tiwaawan ville verte mais pour pourquoi nga ñëw fu nu jubee gàmm nga ñëw gor garab yëpp dem leen Tiwaawan ngeen xool garab yëpp gor na leen ba pare ni day jëmbataat ay garab est-ce que la gis nga ñun booy Dakar nga ñuy jaay mais booy Tiwaawan ñun lan lay jaay lu mel ni midi nag laa la wax gis nga li ngay def nii yaa ngi ree mais yow waa Tiwaawan nawloo tunu la marché Tiwaawan dem leen ngeen dugg fa ngeen xool marché Tiwaawan na mu mel. mais ay saxafa ne. merci loolu ngay dem nga defar yi moo gën. La parole est à notre collègue Mamsa Ndiaye, suivi de Ndei Fatou